kàddu rek bu ko defee buñ paree jox sëriñ bi bu ñaan ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar tey siyaar suñu kilifa ci tedd gi sëriñ Moudou Mahfous moom seen Cheikh Awa Balla moom soxna May di ko siyaar bu baax a baax di ko jox wàcc waayam di masawu coono yi daj ba yegg si fii ngir lépp xeeti li ñu suñ jëm yi rek xam ne bu ko neexoon comme ni mu koy wax saa su toog Sénégal te lu mu bëgg bu ñu wooyee ñu fekk ko fa mais nag ñëw gi ñëw ji ñun tawfeex la ci dëkk bi kilifa yu toll nii moom buñ fiy ñëw dañuy gën suñu xel day gën a dal kon ñu di siyaar bu baax a baax mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo fi toog di sëti Serigne Touba yi ku mel ne sëñ Abdou Samad Serigne Saliou Amsa Serigne Bassirou Xaadim Awa ak Serigne Bousso ak sëñ Mohamed mii di doomam mu àndal di nuyu Serigne Mourtala Touré ak mbooleem Serigne si fi nekk yëpp di nuyu suñu jëwriñ di jëwriñu fédération bi yëpp muy Serigne Yankhoba Gueye bu ma ko tuddee rek mi ngi mel na tudd naa fédération bi di nuyu sëñ Dame Cissé ak mboolem jëwriñ yëpp daal bu ma limee xam naa ne du matal ñu ngi siyaar ñëpp. wa xayra xadimihi wa ummatihi wa sallam tasliman ginnaaw bi ñu santee suñu borom subhanahu wa taala di ko jégalu mbooleem suñuy njuumte noonu la ñuy jégaloo mbooleem taalib yi fi teew yëpp jëpp àq ñoo xam ne taxul suñu diggante ak yéen. tey yëkkati nuyoo bu sell di ko teg ci suñu kilifa gu tedd gii fi ne eh, teew fi tey jataayub borom daaru teew fi jataayub Cheikh Awa Balla di sëñ Mouhamadul Mahfous Mbacké eh, bintu soxna May Mbacké eh, sëñ bi ñoo lay siyaare lu bari ci turu mbooleem taalibe yi ci réew mi yëpp muy góor muy jigéen tey am mbégte bu baax ci teewaay bi nga teew ci suñ biir sàllaa wëralewu ñu la ak tey jëmmi borom daaru fii ndax ca moom nga bàyyi ko ñëw fii ci nun eh, dina jox sa wàccuwaay lu ci manqué rek matadeeg doomu aadama rek la waaye suñ yéene ci yow faw xana lii eh, tey siyaare suñ mbokki yu baax yi fi ne sa njaboot ak bopp gi Cheikh Mouhamadul Basir eh, moom sëriñ Xaadim Awa Ba ak sëriñ Saliou Mbacké moom sëñ sëñ Xamsatu ak sëñ Samat Mbacké moom sëñ Ibrahima Khalil Mbacké ak sëñ Boussa sëñ ma moom sëñ Malick Boussa euh, di am mbégte bu baax sëriñ bi comme ni ko mbokki yi fi jaar rek waxee ñoo ngi lay séeréel taalibe sëñ Tuubaa yi ne ci réew mi ak mbokki jullit yi fi ne muy daa daayira Maam Alaaji Maalik ak kum ci mën a doon ñun ñëpp lënkoo nañ rek benn mbooloo boo xam ne dañoo boole suñu bopp muy benn muy murit bi muy tijaan bi muy xaadir bi kenn mënu cee xàmmee kenn lu ci yittee kenn rek yittee ñëpp la loolu moom ñoo la koy seereel di la seereel ne taalibe sëñ Tuubaa yi fi nekkit boole nañ seen bopp bu def ko mel mbooloo moo xam ne ku ci ne lay sa yittee mbooloom rek mooy sa yittee bopp ba looloo sabab tey liggéey bu fi sotti rek looloo ko sottal fépp fu leen ma a ci liggéey sëñ Tuubaa lu manqué ñun ñi ñu teg ci seen kanam ci ñun la manqué waaye du ci ñoom kon mbooleem loo xam ne jëwriñ war na ko wax ay mbokk taalibeem ñu jëfe ko ñoom daañu ko jëf bu jëf ci loo xam ne ñun suñu suñu jëf bopp lott na ci seen yéene ci liggéey sëñ Tuubaa faw xam ne ñun ci liggéey sëñ Tuubaa sahadat shuuri min al kabaayir wa ma sahidna illa bima alimna lii ñu seere rek mooy li xam ci ñoom daayira borom daaru bi nga xam ne tam sa njaboot ak bopp la comme ni ko mbokk taalib bi waxee léegi sëñ mbay Seex noonu rek la demee liggéey sëñ Tuubaa bi ñu seq ñoom ci dëkk bi wane nañ ci pëstéef wane nañ ci ngor wane nañ ci jom lépp lu nga xam ne sase nañ ko fii daañu ko def ba def ku nu kawe suñ jor ba ñun ñi daanaloo nañ ñu fi ab jël ba tey ngir jëf ju am solo joo xam ne ñu ngi koy jëf ànd ko ak seen mbokk taal bi yëpp loolu dafa rafet te baax yow mi seen kilifa boo fi teewee ñu seereel la ko kon ñoo ngi lay seereel loolu mbàkkee xam naa nag comme toogaay yi dafa yàgg sëriñ bi toogaay métti na dañuy gàttal suñu kàddu rek di sàkku ci moom mu ñaanal mboolem jullit yi fi ne yëpp ñaanal mbokki taalibe yi ba fépp fu ci waay aw ren saabar bi yàlla xëpp la ay xéewal ci barke sëñ Touba ba loo yéene liggéeyal sëñ Touba yéene ko defal say waajur ak mbokk yi yàlla may la xéewal yi toll noonu suñu xool sedd na bu baax Mbakke jërëjëf jërëjëf. rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kon nu tàmbalee kàddu yi kàdduy siyaar ak kàdduy cant jëmale ko ca kilifa yoonu bàyyi ko ci ñoom te ki nekk ci bopp ba di sunu kilifa di sunu sëriñ di al cheikh sidil muxtar xafidahullah wa raahu mi fi toogal sëriñ Touba ñoo koy siyaare bu baax di ñaan sunu borom tabaraka wa taala al ali al mu may ko fan wu gudd te may ko wér bu baax ba li mu yéenee liggéeyal maamam ju tedd ji ak way juróom yu tedd ya mu def ko nem ko bëggee ci barkeb Xaadimu Rasuul di sàkku it ci mboolem bokki taalibe yi ak bokki jullit yi ñu maase ci ñaanal ko bu baax a baax xam ni sëriñ bi moom lenn du yiteem lu dul sàmm njabootu sëñ Tuubaa gi di bokk yi di taalibe yi ba jofal leen ci sëñ Tuubaa kon nag ku ne nga ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi te may ko bu baax moo bokkam yépp di siyaare itam sunu waajuru bopp di sëriñ Abbas Mbacke mi nga xam ni moo fi toogal maam Thierno Ibrahima borom Daaru yi moom itam di ñaan sunu borom mu may ko wér te yàggal ko fi lool ba liggéey yu mat yii mu sumb di ko liggéeyal borom daaru moxti mu def ko na ko bëggee di sàkku itam ci bokki taalibe bokk jullit yépp itam ñu ñaanal ko bu baax a baax moom sëriñ Abbas di nuyu tey siyaare itam sunu kilifa bopp di alxaaji maam ci Mbacke mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Cheikh Awa Balla te mat ku sëkk fa tabaarakallaahu di ñaan sunu borom may ko fan bu gudd te may ko wér bu baax ba li mu yéene liggéey ci kër wajur mu tedd mu def ko na ko bëggee di sàkku yi ngeen ñaanal ko bu baax a baax xam naa kon nu sànni ci kàddu yi eh, fàttali rek ni nu ko sunu borom tabaraka wa taala sant ndax sunu borom dafa wax ne wa zakir fa inna zikra tanfaul muminin wax ne na ngeen di fàttalente ndax fàttale lu am am na njariñul way gëm yëpp gannaaw nag njabootu sëñ Tuubaa ñoo fi bokk teew ak njabootu maam Cerno Ibrahim ak mboolem yoon wi kon lu nuy fàttali rek nuy jiital sunu bopp di ko fàttali bokki taalibe yépp ndax war war war téef la ndax sang bu tëdd ba di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa dafa wax ne kullukum raain wa kullukum masulun an raiyati nee na kenn ku ne ab sàmm nga te kenn ku ne da nga taxaw fi sa kanam sunu boroom ñu laaj la la doon sàmm na ko doon sàmme kon sëriñ Yàqooba bi yaag mbooleem ñi jiite daayira sëñ Tuubaa yi fi nekk ak sëñ Maam Cerno Amar ak mboolem ñi jiite daayira yi borom Daaru Muxti dana si dellu maa ngi leen di jottali sama nuyoo muy nuyoo bu bàyyi ko ci kilifa yu tedd ya jëm ci mboolem njabootu sëñ Tuubaa gi nuyoo bi nag maa ngi ciy jiital sama bokki bopp yi moo fi fekk di samay njaboot di samay doom sëriñ Saalihu moom di sëtub Cheikh Abdoul Ahad moom sëñ Hamza mi ngi fi sëñ Abdou Samad moom sëñ Ibrahima Khalil moom Cheikh Mahamadul Fadal mi ngi fi ak Cheikh Mahamadul Bachir ak mboolem njabootu sëñ Tuubaa gi fi teew gépp maa ngi leen di nuyu di leen sant bu baax kon nag kàddu yu nuy fàttali mooy nu góor góorlu bu baax rek ci li nu fi sunu boroom àndee te muy loo xam ne buñ ko xoolee ci alxuraanul karim fekk ko fa buñ ko xoolee ci waxi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fekk ko fa buñ ko xoolee ci waxi sunu sëriñ ba di sunu yaakaar tey ëllëg di Xaadimu Rasuul fekk ko fa li nu ciy jiital nag mooy nu fas yéene ko ci ragal yàlla ndax day tomb boo xam ne sëñ Tuubaa danu see leeral lu baree baree bari ci mooy ragal yàlla sëñ bi dafa bind ci loxo boppam moom xaadu xaadimu rasul wax ni usikum wa nafsi bi taqwallahi al azim li annahu afdalu kulli shay Sëñ Tuubaa nee na maa ngi leen di dénk te di ci jiital sama bopp di ci boole sama bopp ci ragal yàlla mu màgg mi ngir ragal yàlla moo gën lépp sëñ bi teg ci ne innal fawaida fi l aqaid wa ne taqwa rasu kulli xikmatin wa jimaau kulli xayrin wa neama sëñ Tuubaa nee na njariñ mi ngi ci pas-pas te ragal yàlla mooy mooy bépp njariñ bépp njariñ mi ngi ci ragal yàlla te moo ëmb bépp yiw ak bépp xéewal sëñ bi teg ci ne fa man araada al ilma falyattaqillah wa man araada al rizqa falyattaqillah wa man araada an najaata falyattaqillah wa man araada an yakuna akrama an naas falyattaqillah qaala taala inna akramakum inda allahi atqaakum sunu sëriñ di sunu yaakaar tey ëllëg di Xaadimu Rasuul nee ku bëgg xam-xam na nga ragal yàlla ku bëgg wërsëg na nga ragal yàlla ku bëgg mucc na ragal yàlla ku bëgg a dem ba gën ci nit ñi na nga ragal yàlla ndax Sëriñ Tuubaa nee na yàlla moo waxal boppam ne inna akramakum indallaahi atqaakum nee na ki gën ci yéen moo ki gën a ragal yàlla kon loolu noo ngi koy fàttaliku di ko fàttali sunu bopp di ko fàttali mbokki taalibe yi nga xam ne noo bokk yaakaar sëñ Touba ragal yàlla nag am na nu ko sëriñ bi leerale nee na ko ibaratun an imtisaalil awaamir wajtinaa bi nawaahi nee na ragal yàlla mooy jëfandikoo ndigal yi te teet tere yi ci jamonoy yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mos nañoo laaj sayduna aliyu karamallahu wajha ne ko lan mooy dëgg-dëgg ragal yàlla mu ne attaqwa huwa alxawfu min aljalil wal amalu bi tanzil wal istidaadu lirahil sayduna aliyu nee na ragal yàlla mooy nga ragal sunu borom tabaraka wa taala mooy ngay jëfandikoo li mu indi ci téeram ba di alxuraanul karim mooy di fàttaliku waxtu wu nekk tey waajal jóge fi waajal dee ngir dellu ci sunu borom tabaraka wa taala bu nu ragalee yàlla nag tomb ban see teg mooy nu fas yéene tënku ci jaamu yàlla xam ne loolu itam day ndigal loo xam ne benn jurit sañu koo bët ndax sunu borom tabaraka wa taala mi bind lépp moo waxal boppam ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li sunu borom nee na binduma nit ak jinne lu dul ngir ñu jaamu ma jaamu gi nag mooy li gën a ñor sunu borom te nu war a bokk xam ne jullit yëpp ak mbindeef yëpp bu ñu maasee woon ci jaamu sunu borom itam du dolli dara ci teraangam ji ak màggam ga waaye bu ñu maasee def safaan ba fa tabaarakallaahu du ko wàññi dara jaamu gi njariñul mbindeef yi rek la. kon nu fas yéenee góorgóorlu jéem a tënku ci jaamu yàlla ni ko sunu boroom bëggee ak ni mu ko diglee sunu boroom nag dafa digle jaamu yàlla amit lu mu ca teg muy li mu gën a bañ ndax dafa wax ne waabudullaha wala tushriku bi shay'an loolu la ca teg dafa bëgg ku jaam yépp mbindeef yépp jullit yépp di sax ci jaamu yàlla waaye nag bañ a bokkaale moom dara dara dara nga xam ne kon mënees naa wax ne li sunu borom gën a bëgg ci jaam yi mooy ñu di ko jaamu waaye li mu gën a bañ ci ñoom mooy ñu di ko bokkaale yàlla ci sunu borom musal ndax am na fu mu waxal boppam ne inna allah laa yaxfiru an yushraka bi wa yaxfiru ma doona dalik nee na sunu moom kar sunu borom waxal ne boppam ne du jéggale mukk ku bokkaale ak moom waaye nag mën a jéggale yeneen yu dul yooyu lam ca teg nag mooy wa abdullah wala tusuko bii shay'an wa bil walidayni ihsana mooy ñu rafetal diggante waajur yi kon foofu li ñu ci jële mooy sunu borom dafa bëgg ko koy sax ci di ko jaamu bañ ko ko bokkaaleeg moom bëgg koy rafetal sa diggante ak say waajur jaamu yàlla gi nag ni nu ko sunu borom waxe ci alxuraan sëñ Tuubaa leeral ko mooy dañ ko war a jéem a dëppale ak sunnas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax sunu borom bi mu santee bi mu wax bi mu xamlee ne jaamu yàlla rek a tax mu bind nu danoo tegtal nan nanu ko war a defee ndax dafa wax ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana nee na yonte bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu defal muy sunu royukaay kon danoo war a di roy ci moom moom dellu wax moom sunu borom ci tabaraka wa taala ci alquranul karim ne wa ma atakum rasul faxudu wa maa nahaakum anhu fantahu nee na lépp lu leen sayduna muhammad sallallahu alayhi wa andil na ngeen ko jàpp te jëfe ko te lépp lu leen tere na ngeen ko bàyyi kon jaamu yàlla dañ fi war di jéem a dëppaleeg sunna si muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy ndigalu sunu borom sunu sëriñ di sunu yaakaar tey ëllëg di xaadimu rasul ridwanullahi alayhi wa nafaana bi moom itam bu nu sukkandikoo ci ay waxam ñaari kàddu yooyu rek moom la dëggal ndax sëñ bi wax na ne duumu ala sunnati wal ijmaai baada kitaabillahi bi ijmaai loolu ndigal la loo xam ne sëñ bi moo ko santaane dafa wax na ngeen na ngeen téye sunna na ngeen sax ci sunna ak al ijmaa mooy war waxi waroon xam-xam yu mag yi waaye nag ganaar ba ngeen jiitalee téere bi yàlla bi muy alxuraanul karim sëñ bi teg ca ne man talabal wusula lil jalili fal yaatasim bi sunnati rasuli xaadim rasul nee na képp koo xam ne da ngaa bëgg àgg ci sunu borom tabaraka wa taala digal naa la na mooy ci sunnas muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon loolu mooy fi nu war a wéer sunu jaamu yàlla sëñ bi tam ndekete moom ci boppam it foofee la wéer ak jaamu yàlla moom xaadimu rasul jëmu ci tedd ja te nu xam ne sëñ bi li ko ñor tax ko dikk mooy wommat jullit yi wommat taalibe yi ba ku bëggaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga la waxal boppam lil Moustapha nawaytu maa yujaddidu sunnatahul xarra wa inni ahmadu nee li ko ñor tax ko ñëw tax ko dikk mooy yeesal sunna sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ku ci bëgg a àgg kon loolu nu war ci góorgóorlu bu baax sëñ bi nag dafa jël léppam jox ko sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu nag bala maa agsi ci fi ko sëñ bi waxee ak ni mu ko waxee dañ caa war a ko yaakaar nga xam ni sunu njariñul tey ak sunu njariñul ëllëg lépp noo ko wér ci xaadimu rasul sëñ Tuuba nanu xool ni mu jàppee sayduna muhammad sallallahu alayhi wa ni mu ànd ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mu ko ñàkk booleeg dara nu fas yéene jàppe sëñ Tuubaa noonu ndax sëñ bi dafa dem ba li li ñuy wax mu def ko moom Xaadimu Rasuul dem na ba ne billaahi wallaahi wa tallaahi wa tallaahi xayaati wa mamaati wa xarakaati wa sakanaati maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wax mënta gën a rëy wax jooju wax mënta gën a kawe wax jooju wax mënta gën a fas wax jooju sëñ Tuubaa nee na mi ngi war ci yàlla moom yi nga xam ne mu ne mooy yàlla mi nga xam ne mooy atte te moo xam lépp ni ak dundam moom xaadimu rasul la ci gannaaw dundam moom xaadimu rasul ab yëngoom moom xaadimu rasul ak dale moom xaadimu rasul lépp àdduna ko àdduna ko ak sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa kon nag loolu royukaay la ci nun ñi yaakaar sëñ Touba noonu yi mu ànd ak yonte bi nu fas yéene ànd nekk sëñ Touba bañ ko booleeg dara te nu xam ne xett li mbindeef yi li jullit yi mooy li ko tax a jóg wa axrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma sëñ Touba ma ngi ñaan borom ne ko rekk son borom maa ngi lay ñaan nag ma dimbale ma sax ci di liggéeyal jullit yi ngir seen njërmande ak seen njëriñu tey ëllëg kon loolu nu fas nu fas yéene bàyyi xel bu baax a baax a baax fas yéene tënku ci jaamu yàlla ñi nu ko sunu borom sant ak ni ko sëñ Tuubaa doon diglee sawee jullit yi ba kenn ku ci nekk la nga bëgg ci sunu borom nga am ko kenn ku ci nekk sunu borom yërëm la kenn ko ni sunu borom xare la àjjana loolu moo doon mission bi taxoon sëñ Tuubaa jóg fu nekk ma fay lay jullit yi fu nekk ma ngay dox diggante jullit yi ak seen borom tabaaraka wa taala fa innahu fa innahum wa in asawka yaa ahad li xafilatin ngi wax sunu borom ne ko jullit yi day buñ la mooyee itam seen tàggante rek la de waaye bokkaale wuñ la ak dara dara dara dara kon yërëm leen ci jéggal leen wa innahum la taqdiru ala balaika li dofin yadharu sëñ Tuubaa ma ngay dox diggante julli di ak seen borom tabaaraka wa taala mu ne ko buñ la mayee itam de seen yaram yi seen seen seen seen seen yaram ñoom julli yi wallaahi attanuwul attanul sa mbugal ngir lott buñ lott kon ngeen xam ni Sëriñ Tuubaa dafa ñëw ngir sowe mboolem julli di ba kenn ku ci nekk mën naa gi suñu borom tabaaraka wa taala la nga bëgg nga am ko suñu borom tabaaraka wa taala tombu ñaareel bi itam mooy bokkoo gun war a bokkoo ak bennoo gun war bennoo ak dimbalante gun war di dimbalante ak bëggante gun war di bëggante bu nu delloo ci alxuraanul karim sunu borom mi ngi wax ci alxuraanul karim ni innamal mu'minuuna ixwa wa aslihu bayna axwaykum wa taqullaha laalakum turhamun sunu borom nee na way gëm yëpp ay bokk lañu nañu yéwénal te rafetal seen diggante boole ak ragal yàlla bu ko defee moom sunu borom mu yërëm leen kon bennoo gi ak bëggante gi ak dimbalante gi ndigal la loo xam ne mi ngi bàyyi ko ci sunu borom tabaraka wa taala jëm ci mboolem jullit yi te bu delloo ci wax yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ne laa yuminu ahadukum xataa yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsi sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ni yéen way gëm kenn ci yéen di ngëmam du mat ci lu dul la muy yéene boppam da koy yéene moromam kon loolu noo ngi koy fàttali sunu bopp di ko fàttali boppi taalibe kooku jullit yépp bu ko bu ñu bëggantee nag la ca war mooy sax ci di dimbalante bu baax a baax jullit bu ne am na noo war a dimbalee am na loo mën a dimbalee sa moromu jullit bu nu dellu ci alxuraanu karim sunu borom mi wax ne taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan sunu borom mi ngi dafa dafa digal jullit yépp ne nañuy dimbalante ci lu baax ak ragal yàlla te bañ di dimbalante ci noonoo wala ci ay bakkar te yonent bi sallallahu alayhi wax na ne fallahu fi awni abdihi ma dama al abdu fi awni axihi nga ji mi def na sunu borom day dana sax ci di dimbali ak jaamam li feeg jaam baa ngi dimbali moromam jaamam kon loolu noo koy fàttali sunu bopp di ko fàttali bokki tàlli bi yépp yaakaar moom Xaadimu Rasuul ndax dafa wax ni wala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa loolu murid yépp la ko Sëñ Tuubaa digal dafa wax ne bu leen noonoo ak kenn koo xam ne ma ngay génn ci gémmiñam baatub laa ilaha illa kon ni sunu borom bëggee nu bennoo yonent bi sallallahu alayhi wa ñëw feddali ko noonu la ko Sëñ Tuubaa digale mboolem yu ci moom sëñ bi wax ak mbokk taalibe bi yéen nee leen kuunu muhibbiina ko yoona li jamii xalqi ilaahinal muqaddimil badiya loolu itam sëñ Tuubaa da ko sant mbooleem ñi ko yaakaar dafa wax ni yéen ñi ma yaakaar digal naa leen na ngeen bëggal aw yiw mbooleem mbindeef yi yàlla yi nga xam ne jëlali na taalibi ak moroomam taalibeem jëlali na taalibi ak moroomam juritam waaye dafa bëgg taalibe bu ne bëggal aw yiw yéene aw yiw mbooleem li yàlla bind loolu ndigalu sëñ Tuubaa kon nag nu fas yéene tënk bu baax eh, jamono bi nag bari na ay ay ñàll bari na ay ñuy ay ñu li ñuy wax ñuy këfe waaye nu xam ne sëñ Tuubaa mi nu topp te wéeru ci moom gannaaw bu mu nu diggee gannaaw bu mu nu diggalee nu fas yéene tënku ci jaamu yàlla te di ko di ko dëppale si Muhammad sallallahu alayhi wa am na njëriñ moom nu tànnal jox na ko jox na ndigal nu sax ci ngir moome muy ngirum imam Malik ngir yi bari na ñeenti ngir yi fi ñeenti ngir yi fi am na sax ñu xam ne aju ñu ci ay ay ay waaye murid yi yaakaar Sëñ Tuubaa dafa wax ak ñoom wax ne leen aleykum bil malikiya mu innaha mutaharatun munawwara sëñ Tuubaa nee na yéen murid yi tànnal na leen ngirum imam Malik ndax ngir la mu leer nañ ngir la mu fees dal fa tabarakallahu kon nag loolu itam ñu xam ne jaamu yàlla gi buñ ca saxee dëppale ko sunna si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nanu mooy ci ngirum imam Malik ba ku nit ku ñëw rek bañ noo fëgg bu loolu jàllee nun jàpp nag sunu taalibe bu baax xam ne sëriñ Tuubaa moom ku sunu borom booleeg moom dafa naa ci yow yaa yëgu sunu borom dafa naa ci yow teraangay adduna ak teraangay àllaaxira euh, sëriñ Tuubaa ay pexe taxut a ànd ak moom ku ànd ak moom ku ne booy baa nga mën a waat ni sunu borom daf laa nar a texel adduna nar naa texel àllaaxira kon nag nanu fas yéene jàpp taalibe gi bu baax bañ koo boole dara taalibe Sëriñ Tuubaa bu ne dafa war a xam te gëm te mu wóor ko ne li mu bëgg ci boppam fi dunya wal aaxira ci sëñ Tuubaa la gën sëñ bi fàggul na lépp sëñ bi waxal na boppam cër yi mu am ci sunu borom ak cër yi mu am ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa wax na ne farraxanil akramu tafrixan yaduum bi bi annani xillun waxibun waxadim sëñ Tuubaa nee na sunu boroom bégal na ko jox ko ñetti cër def na ko mu di soppe def na ko mu di xarit def na ko muy muy lëggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa bi dellu wax loo xam ne itam war na noo doy sëkk nu waxtee sukkandiku war a tëysoo taalibe wax na ni kullu muridin bi yaludu yasadu wa annahu min al ada mubaadu nee na bépp taalibe boo xam ne da nga aju ci moom da nga te lépp luy xeetu lor lépp luy xeetu gàllankoor taalibe bi dana ko sori loolu nag taalibe yi mënaluñ ko seen bopp gannaaw si bi mën na leen ko te leen defal na leen ko nañu jàpp suñu tuwaate bañ ko boole dara sëñ bi teg na ci ne na jaaxawul baax yi mi na niiraani dunya wa uxra wa ko minal xusraani nee na taalib yi aju ci moom sunu borom musal na leen ci sawara musal leen ci perte ci àdduna musal leen ci perte ci àllaaxira kon loolu damaa bëgg nu xam ne sëriñ bi ndimalul yàlla la sunu borom moo na ko baaxee nu fas yéene jàpp ko bañ ko booleeg dara taalibe bi ne na fas yéene doon jullit xaqan fas yéene doon murid saada leneen li ma ci dolli mooy nu góorgóorlu ci njaboot bi ndax bu kenn jàpp ne rek da ngaa war a rawale sa bopp jàpp sa diine di ko dëppaleeg sunna jàpp sëñ bi fàtte sa njaboot baa nga sàggane sa njaboot nanu góorgóorlu ci njaboot bu baax am na benn addis boo xam ne sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax muy addis bu wér wax ne kullu kullu mawlidin yuladun kullu mawludin ala fitra fa abawaahu yu hayyidaanihi aw yu nasiraanihi aw yu majjisaanihi nga njiim def sallallahu alayhi wax na ne gone gu juddu gone dara nga mënalul sa bopp dara nga fàggalul sa bopp say waajur ñoo lay def ngay yahud wala ñu def la ngay nasaraan wala ñu def la ngay majus yàlla incha allah musal maanaam say waajur ñoo la war a teete awalalu ci yoon ba nga xam ne doo doon ab juif doo doon ab chrétien doo doon it majus majus mooy ate ku xam ne gëmul benn ci diine yi loolu waajur wu ne war nga ci bàyyi xel bu baax bu ko defee boo gisee sëñ Touba ci tasawdu sixaar nga xam ne mboolem njaboot bi ku ci waxtu alxuraan si naa wax ni téere boobu ngay njëkk a jàng lam ciy dénk ndaw ñi mooy bëgg ñu góorgóorlu rab waajur yi góorgóorlu ci ñoom ndaw ñi góorgóorlu yaa ayyuha sibyaanu laa tashtaxilu anil hudaa wa bil ulumi bi fashtaxilu bil xifdi wa tilaawa sa majaalisa saqaawa rek yéen ndaw ñi bu leen yittewoo lenn lenn lu dul ak jub ak xam-xam na farlu ci jàng alxuraanu karim te di ko jàng te ngeen di teeg jataay yi way texee di kon loolu bokk na ci li ma doon dénk suñ bokki taalibe yi am na dénkaane boo xam ne sëñ bi defoon na ko jëmale ci taalibe yépp lu ma di bàyyi xel la dafa wax ne yaa may yaroomul fawsa addim niyatun min qabli sa'yin fi loolal mardiya nee na yow taalibi bi jiitalal yéene bala ngaa jëf ngir su fekkee bëgg nga li nga jëf sunu borom gërëm ko wattani bil afaati wal mafaasida yakfika rabbukal adaa wal xaasida nee na dëggal naa la nanga moytu yu ñaaw yi ak yu tilim tilim yi ak yu bon bon yi te boo ko defee sunu borom dana la musal ci lor ak kañaan ak lépp ko wala tunaasixa non saate war a bi fii ma la daa rabbi ko waxti raxa bi sëñ bi nee na bul xëccoo bul xëccoo moykat yi ci seen bëgg-bëgg yitte woon yàlla mi joxe li nga bëgg bu ko defee sunu borom musal la ci mbooleem yaaskat yi mat euh, kon loolu noo koy fàttali bokki taalibe bi yëpp nu góorgóorlu bu baax euh, wéeru ci sunu borom tabaraka wa taala te xam ne Sëriñ Tuubaa mi sunu borom booleel doy na nu sëkk te doy na sëkk na ko jàppal suñu loxo maa ngi dellu di yeesal nag samay cante bu baax ak samay gërëm bu baax ci wàllu ndaw yi itam fi ma ciy jeexale mooy nu góorgóorlu ci yar ndaw ñi yar leen yarub diine yar leen yarub taalibe ndax am na nit doomu aadama bu ne bu nu bu nu wekkoo ci wax yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am bu wax bu wax ne ida maata ibnu adama in xataa sawaabuhu ila salaasa ilmun yantafiu bi aw amalun saalix aw walad yad'u la yonent bi nee na doomu adama bu faatoo aw yoom bépp dagg na dara du ko fekk ci bàmmeelam lu dul ñetti yëf ilmun yantafiu bi xam-xam bu mu amoon bàyyi ko fi moom ki faatu ñu di ko jëriñoo aw amalun saalix wala jëf yu baax yu mu jëfoon ci adduna jullit yi di ci jariñu moo xam muy tabaxi jàkk bàyyi fi moo xam muy tabaxi daaray moo moo xam muy tabaxi ay fajukaay bàyyi fi moo xam muy gas ay teen bàyyi fi wala yu mel noonu wala yu mel noonu mu ne yaar yooyu mooy fekk nit ci bàmmeelam bu faatoo la ko ñetteel nag mooy doom jooy ñaanal doom jooju nag boo ko yarul yarul diine jàngalu ko alxuraanul karim wóoloo ko yoonu yàlla wóoloo ko yoonu sëñ Tuubaa dana tal leneen wala doxam xam lu mu la ñaanal gannaaw nag faatu mënta ñàkk te ko faatu ko ne yett yëf yi doomu moo lay fekk sa bàmmeel war na ci góorgóor bu baax nanu bàyyi xel ci yarub yarub gone yi yar leen yarub diine jàggaleen alxuraanul karim yar leen yarub taalibi boo boo léegi ku fi bàyyi ko ko ne sa njaboot man lay defal loolu lay fekk sa bàmmeel kon ma dellu di sant bokki taalibi yëpp jóge ci jiital yàqu Yaquba Guèye mii nga xam ne moo fi toog toogal fi ki fi nekkal sëñ Touba toogal fi bokk yëpp toogal fi yoon bépp di rafet aw doxe ne bu baax xëy na tey laa fi njëkk dikk waaye mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi bàyyi ko ca réew ma di fi ñëw marché nañu xam ak taxawaayam rafetlu ab taxawaayam ak doxinam kon sëñ ba maa ngi lay jottali suñuy cant ak suñuy ngërëm bu baax nga jottali na ko mbooleem bokki taalib yi xam nañ ne jamono bi jamono bu lëj la waaye ñi nekk fii ci réew mi di ci Argentine li nu xam ci ñoom dégg ko ci ñoom di njëkkoon du fikk mooy jàpp ngeen seen diine jàpp ngeen seenu taalibe bi fonk ngeen seenu liggéey te dara yitewu leen lu dul liggéeyal Sëñ Tuubaa te loolu nag mooy yoonu mooy yoon wi nga xam ne mooy yoonu taalibe di sant itam bu baax maam Thierno Amar mii nga xam ni moo fi teewal njabootu borom daaru moom di gépp bala maa àgg ci cant yi sax bala maa àgg ci maa ngi koy maam Thierno maa ngi lay eh, maa ngi maa ngi rafetlu lool cant yi nga xam ni sëñ Yaquuba ak mboolem njabootu sëñ Tuubaa gi daayira sëñ Tuubaa yi ñu ngi koy sant waa daaru moxti yi ndax wax nañu ne daayira bi dafa am bu mbooleem kër yépp waaye nag doxin wi waa Daaru Muxti di dox lu ñu rafetlu la te kenn mënu leen ci liggéey bi Sëñ Tuubaa loolu nag eh, mbégte la ci noonu noo ngi leen ci gërëm di leen ci sant di leen ci fàttali bu baax ndax taalibe borom Daaru Muxti fu mu nekk fu nekk royukaay la fa war doon ndax kat borom daaru danaa ko di wax gannaaw bu mu bokkee sëñ bi la bokk loolu jëfi sunu borom la gannaaw bu ñu bokkee ci seen waajur wu ko bokk seen waajur wu jigéen loolu jëfi sunu borom la waaye moom borom daal ci boppam sëñ bi da yaral boppam jàngal ko lu mu xam lu ne sëñ Tuubaa moo ko xamal ba yàlla mi def mu nekk xaafid nekk aalim nekk abid muy ñetti yëf yoo xam ne lu jiitu sëñ bi moom la doomi soxna daan buukari woo man alxuraan mayeen wu rafet xam mboolem téere yi xam-xam yi ba noppi la nga xam nga di ko jëfe ñooñu téere borom Daaru Muxti bokkoon te xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni al ulama warasatul anbiya yonent bi nee na waroom xam-xam yi ñoo fi wuutu yonente yi gannaaw bu yonte amatul ku ne xam na ni borom daaru si xam-xam yooyu ca bokk waaye dafa jël léppam jébal ko xaadimu rasul sëñ Tuubaa liggéeyal sëñ Tuubaa liggéey boo xam ni bàyyiwul ci xel ci ne ñoo bokk lii bàyyiwul xel ci ne ñoo bokk laa liggéeyal sëñ Tuubaa ba sëñ bi gërëm ko ngërëmul boppam loo xam ne ñetti seere yi sëñ bi def ci Ceerno Birahim doy na sëkk ci ñoo xam ne sëñ bi gërëm na ndax sëñ bi moo bindal boppam ne Thiarou de mooy jëmm ji nga xam ni mu sa wóoteeg man ci ndaw mu sa wóoteeg man ci ma daw dellu bind moom sëñ Tuubaa wax ne Thiarou de mooy jëmm ñi nga xam ne mooy sama pédagogue ndeyjoor mooy sama loxom ndeyjoor bu mu koy joxe ndigal muy sañ ci daawul moxti yi bataaxal ba mu ko yónnee am ñu wax ne suñu xam sulu jaxate moo ko yóbbu wala boog ci moom la jaar da ko ne neel Ceerno da dem dëkk boobu tudde ko Daarul Muxti na ko wóor ne lu ko fa fekkul man Xaadimu Rasuul dama ko amul eh, te teewul dundam gépp da ko teg ci sariya ak ci xaqiiqa dund na ba wuti boromam làq juróom-ñetti fukki at kenn mu si gis ci àdduna borom daal di jullee ci biir këram lu dul jàkka ja mos na nangoo bàyyi it jàngale waxtu wu ne ma ngi jàngale kon nag ku bokk ci borom daaru war ngaa fonk sa diini war ngaa fonk sa taalibi war a boole say beeg dara kon nag loolu bi mu dikkee te xamal ma ne may yéen a ngi ci kenn mënu leen ci daayira sëñ Tuubaa yi loolu ci turu sëñ Abbas mi nga xam ne moo fi nekkal borom daaru Muxti maa ngi leen jottali sunuy cant ak sunuy ngërëm bàyyi ko ci moom di leen ko feddali bu baax a baax di sama njaboot gi nga xam ne ñoo fi nekk te ñoom ñëpp ñu tënku ci daayira maam Thierno Amar mi nga xam ne mooy daaru borom daaru lox di yow sax ñu di leen xam naa ñoom sax ma di leen lim gënalu leen waaye bu ci tuddee sëñ daam aaw mi nga xam ne mooy seen magum taalibi tudd ci sëñ Moussa Kane ak Mouhamadul Mahfouz sëy Mouhamadul Mahfouz Silla Mouhamadul Mahfouz Wañaan ak Abdoul Khoudous Silla ak Alaaji Talla ak baare baabu mi nga xam ne moom itam fa tabarakallahu mi ngi fi ak nag seen magum taalibe yi di sunu mbokk di Mamour Sylla ak mboolem taalibe yi nga xam ne dañoo aju ci nun ñu dox seen diggante ak Sëñ Tuubaa borom daaru te ne ci biir réew mi yeneen état ñoom ñëpp maa ngi leen di sant mu ci tuddee Mahfous baa nu tudd ci Mahfous Diop doy na sëkk di ñaan ñu góorgóorlu bu baax ngeen tënku ci daayira yi xam ne daayira Sëñ Tuubaa bi moo ëmb daayira yëpp ndigal lu ñu ku bokk ci borom daaru moxti na nga fas yéene bële si kenn jiitu na nga fas yéene bële si kenn man ku fi dëkk ci bokk ci njabootu sëñ Touba wala bokk ci njabootu borom daaru moxti na ngeen kenn ku ne na nga jàpp ne si sa sa wasila bopp moo fi ñëw loo mën ci taral ko loo mën ci taxawu ko na ko def ngir jëmmi sëñ Touba ak jëmmi borom daaru moxti maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom tabaraka taala mu def na ndimbal ak tawfiq def nañu ay julit xaqan def nañu ay murid sadiq Euh, sunu borom yàggal leen fi may leen wér bu baax a baax a baax xëy na gàllankoor yi bari na ci réew mi ak ci adduna bi waaye nag kaaraange sunu borom ak baaxu sëñ Touba moo ko doole lépp kon nag ñaan ci barkeb sëñ Touba sunu borom musul leen ci gàllankoor yëpp ci barkeb sëñ Touba sunu borom yaatal seen i wërsëg ba kenn ku ci nekk yéene jega am ci liggéeyal sëñ Touba nga def ko nangu bëgg sëñ bi nangu liggéey bi na mu gën a rafete mm-hmm. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi